alhamdulilah ñu ñëw seen revue de presse lamb talaatay tey jii la ci gën a fës suñu lamb ma ngay ñëw ci Ama Baldé sëll bu ndaw futur roi suñu lamb mu ñu xamal ne ni ki tey jii lay jàkkaarloog ndax loolu tamit Modou muñ koy bàyyi xel ndax dina ko moytu ci digganteem ak Ama Baldé ngir lu moo mel bañ koo dal ginnaaw loolu Bira Sène

diggante ak Bour Sine ndax Bour Sine du adversaire bu tuuti ndaxte poids lourd la ginnaaw loolu suñu làmb nga xamal ne weekend bi neexoon na lool ak ay làmb fu ci mel ne diwaanu Tëngéej amoon na làmb ci stade Ngalandou Diouf fa la nga xam si ni mooy Amadou Barry amoon na stade Iba Mar Diop amoon na ba ci arène nationale bi suñu làmb ñu xamal ne amoon na waaye foofee ca Ngalandou Diouf ki nga xam si ni mooy ki xam si ni mooy zootechnique numéro 2 moo fa daan petit Baye Fall jël bu rëy ginnaaw loolu ca diwaanu Fatick ñu xamale moo jël mbapat ba nga xam si ni moom lañ fa tegoon Pape Diagne Seras ma ngay ñëwaat ci combat caatu xam si ne combat boobee am na yaakaar ne du yàgg ndaxte ñaari attaquant ñoo cay dajee ginnaaw loolu suñu làmb ma ngay sargal Gaston Mbengue duñu xamal leen daanaa na ngi ni promoteur bu mag a ngi nii ndax combat yi amateur yi gën a soxla moom Gaston Mbengue mooy promoteur bi nga xam si ni moo koy tëgg te combat yooyu combat yu am qualité neex lay doon ginnaaw loolu Balla Gaye 2 kan lay ci jël mu di Boy Niang wala muy Gris Bordeaux ba ci Eumeu Sène ana kan lañ ci paree doo di Boy Niang suñu làmb muñu xamal ne loolee ka leen ko wax ka jege na lool bala Gueye 2 ndax boo xoolee keroog combat Balla Gaye bi le premier janvier ko ko wax lii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo mujjee jugee ci géew bi ndax kooke ku jege Balla Gaye 2 ndax moom mooy ki xam si ni mooy borom combat bi te moo signé contrat yi ginnaaw ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje